26 janvier ci at bi 2023 laa taxaw ci télé bu ñuy woowee Walfadjri ak site internet bu ñuy woowee Seneweb man maa sàkku ci président Macky ñu teg bal à terre woote waxtaan kon waxtaan bi du waxtaan bu Macky Sall woote du dialogue Macky Sall ku Barthélémy Dias la ma bëggoon wax ci leer mooy benn beneen bi nag ma bëggoon tamit askan bi bàyyi xel ci lu may wax ba ma koy lancé 26 janvier 2023 ak tey presque ñeenti weer na mosu leen dégg benn kilifa ci Yewwi Askan Wi bu fi yëkkati ay kàddu ne ñoom d'accorduñu ci lu Barthélémy Dias wax kenn ci ñoom waxu ko te ñoom ñëpp am nañ sama numéro téléphone ñoom ñëpp xam nañ ko xalifa Sall mooy suma kilifa bu ma toogal ci conférence des leaders te wax naa lu tax ma woote appel au dialogue dama ne man lu ma gis dalul suma xel parce que benn buum la ak ñaari côté ñaari kaana ku nekk tey benn côté bañ a bàyyi te ku nekk mi ngi xëcc ku nekk mi xëcc ñaar rekk mën a am kenn ki ëpp doole keneen ki xëcc am ndam mais lu ma gis nii gisuma ndam fii gisuma ndam fële te wax naa ko ci émission yi ma lente dama am xel ñaar parce que ñu toogulee waxtaan lu ma gis mooy buum bi day dagg te buum bi su daggee ñaari côté yëpp ñoom ñaar ñëppay xalangu te ala kulli aal dina am kuy ilif Sénégal te ci suma xalaat bu gàtt kuy ilif Sénégal gisuma ko daal mu doon lu ñuy ku ñuy woyee civil mooy lu ñuy woyee civil mooy moo xam société civile lay bàyyeeku wala moo xam ci parti politique yi lay bàyyeeku wala moo xam feneen mun munti bàyyeeku ma ne man dinaa lancer un appel loolu moo waral Barthélémy Diaz lancer appel le donc ku fi taxaw tey nga ne loolu mooy appelu président Macky Sall wax dëgg yàlla dangay ngay fooy sa xel ba ma lancé appel bi nag mu am ay nit bokkuñu ci politique politikuñu ñooñu. daal di jaar ci ay nit pour mën jokkoo ak man ñu jokkoo ma laaj leen leen est-ce que yéen mën ngeen jël garanti que yéen mën ngeen wax ak président de la république ñu ne ñun mën nañ jël garantie wante est-ce que yow mën nga jël garantie que yow tamit mën nga waxtaan ak sa leader yi mën leen man ñaari nit lay waxal ci coalition bi parce que lépp lu may def ci politique ak ñoom ñaar laa koy seqal kenn kii mi ngi tudd Khalifa Sall mooy suma leader politique keneen kii mu ngi tudd Ousmane Sonko ma jàppee ko mu suma doomu ndey ci politique ñu d'accord ci loolu ñooñu su ma juumulee ñoo nañ suma kër ñaar ba ñetti yoon te su ngeen su leen neexee yéen ngeen dem suma kër ngeen xool suma kër ça veut dire man tey suma ma cër mënuma toog fi ne damay joxe ay preuve mais ku ma woo ci yenn yi ma fekk si la ci loolu parce que nag du ma nangu kenn di ma dëkkaloo fu ma dëkkul man suma kër yëpp ay caméra kuy dugg suma kër dañ lay gis kuy génn suma kër dañ lay gis ak heure bu munti doon ñooñu maa ngi leen di jëggalu parce que ay kilifa lañu te amuñu benn intérêt ci lii yëpp ñooñu nangu sol seen dàll ñëw di waxtaan ak man pour mën a dem jokkoo ak président. pour mën a convaincre président que man damaa sincère ñooñu ñëw suma kër ñetti yoon saay bu ñuy ñëw suma kër yëkkati naa suma téléphone woo naa Khalifa Sall ne ne ko ñëw nañu lii la ñuy waxtaan. ma raccroché ma woo Ousmane Sonko ma ne ko gars yi jaar nañu lii la ñuy waxtaan te am naa ci yaakaar ñoom ñaar ñëpp kenn mu suma wax d'accorduñu ci lii ñoom ñaar ñëpp te ñu may dégg dem nañu. ba ci waxtaan bi man laaj ñoom ñaar ñu ma àndal ma leen est-ce que yéen di ngeen d'accord suñu ñoo day waxtaan laata waxtaan bi di am est-ce que ngeen jokkoo ak président Macky saal téléphone saafonte jàmm ak moom ñu yonte ñu ne ma d'accord kon loolu lu may firndal mooy ñooñu ay nitu ay nitu jàmm lañu damay damay dëgg ñoom ñu doon euh, ñu doon euh, ñu doon ñëw pour le compte du président Macky ba ñuy toog di waxtaan di waxtaan ñu ne ma est-ce que yow Barthélémy Dias est-ce que yow nangu nga toog ak président ma ne leen nangu toog ak président dafa am condition man du ma dem pale man du ma président Mermoz te nangul naa leen tamit président de la République président la mënul ñëw suma kër kon tereen neutre ñu toog ñu waxtaan man leen teg ci nag ngeen waxal ma président gàcce bu Sénégal am ci forum de l'eau bëggoon naa ñu waxtaan si parce que ñu ngi waajee ñoo dalal forum mondial sur l'économie sociale et solidaire te dama bëgg moom mu ñëw teew si ñëw présider cérémonie bi ñoom ñu def lu ñu def ba yàlla def ñu ne bés bii ci waxtu bii ci bërëb bii dinaa toog ak président Macky Sall la dernière personne avec laquelle j'ai parlé ba may dugg ci bërëb bi c'était Ousmane Sonko on a parlé pendant plus de trente minutes au téléphone man ak moom ci ay stratégie bëgguma wax parce que du ma cër mais les Sénégalais ont droit de connaître la vérité parce qu'on doit se respecter ñu toog président eggsi alors monsieur le maire de Dakar ma ne ko monsieur le président de la République audience boobu man ak moom kese ak yàlla man ak moom kese ak yàlla président nangu déplacé ko ñu waxtaan man ak président gàcce bu ñu amoon ci forum mondial de l'eau bii mën na ñàkk te dañuy dalal forum bi ci bërëb bi ci waxtu bi ci date bi ma bëggoon nga ñëw fekk si euh, waxtaan bi parce que économie sociale ak solidaire mooy daanaka ci gàttal lu ñuy woowee Sénégal secteur informel tey su ngeen jëlee tey ndaw ñi liggéey tey Sénégal am xëy 90 pour cent ndaw yi yëpp ñu ngi ci secteur informel donc ma bëggoon yow nga ñëw siggil Dakar wante sargal Sénégal parce que lu jotoon xew ci forum de l'eau yow nga jaar nii man ma jaar ne leen loolu rafetul te jeux olympiques de la jeunesse tamit mi ngi ñëw yàlla nga xam ku fiy nekk président de la République mais man président dama la bëgg a xamal ne ni yow doo suma noonu te yow xam bu baax a baax que yow doo suma noonu suma adversaire bi te président àdduna du soppeeku man ma ànd ak yow loolu xam naa ko Bart ma ne ko président yow ba équipe nationale football gagné coupe d'Afrique da nga ma woo invité ma ma ñëw mu ne ma loolu am na ma ne ko yow ba ngay inauguré stade Abdoulaye Wade bu bees bi Diamniadio invité ma ñëw mu ne ma loolu am na ma ne boo may invité quatre avril damay ñëw mu ne ma loolu am na ma ne ko lu tax man su ma la invité yow doo ñëw mu ne ma waa d'accord dinaa réfléchir ma jëli ma ne ko président damay jël engagement duñ fa yuuxu kenn du politique moo ñu fa yóbbu duñ fa tàccu kenn Sénégal rek dañuy sargal mu ne ma d'accord dinaa réfléchir dinaa la revenir noonu la mbir bi demee ci affaire u forum bi ñu commencé nag xuus dugg ci politique ma ne ko président mu ne man naam ma ne ko man duma candidat loolu yàlla dogal namuma candidat ma ne ko wante dama ànd ak suma mag ñu koy woy xalifa Sall te dañ ko jaay doole maa ngi jóglu nag ci kàddu yi mën nga ci bañ a ànd mën na bañ a doon sa xalaat wante dañ ko jaay doole jaare ko ci politique galgal ko bañ a bokk ma bëggoon ñu waxtaanee waat kaawu xalifa Sall ma ne ko beneen bi tamit mën naa juum maa ngi lay jégalu ci kàddu yi lu la constitution may ci sañ-sañ mooy da ngay organiser élection doo organiser sélection ma ne ko yow doo sélectionneur ñu xaw a sax kaf tuuti ma ne ko te fii wax dëgg yàlla dama gis suma yenn doomu ndey dañ leen di jéem a galgal ma bëggoon ñu waxtaan ci parce que ñoom dañu nar a bokk ma ne ko te président maa ngi jégalu ci kàddu yi nag parce que xam naa doo ci d'accord ak man ma ne ko ci jàngat bu ma am ci constitution yow amoo droit am troisième mandat mu ne ma ak lan ma ne ko président dama bëggoon ñu waxtaan ci fichier ma ne ko dama bëggoon ñu waxtaan ci révision L29 ak L30 bu code électoral mu ne ma ak lan ma ne ko président Sénégal dafa am ay détenus politiques mu ngi ci kaso sàccuñu fenuñu reyuñu kenn amul benn sénégalais bu leen plainte yow soo jàppee nii amul détenu politique man lu ma jàpp mooy dafa am détenu politique ñu nootu ko waxtaane mu ne ma ak lan ma ne ko président mënuñu nekk saay bu Sénégal amee président bu bees ñuy bëgg a nelawal sénégalais wala di bëgg a lëndëmal seen seen xel dañu doog a teg lu ñuy woy clause d'éternité mooy ba illaa yoo midin di deux mandats pour président kenn mënatu ko laalaat mu ne ma ah mu ne ma yow xam xalaat nga sa gars yi dinañ nangu waxtaan ci li yëpp ma ne ko président heure bi nii ginnaaw yow ak man ak ñu ma fi indi ak yàlla ñaari ñi kese kepp rek dong ñoo xam ne ni maa ngi toog fii ak yow ba may dugg jot naa leen téléphone te su may génn tamit dinaa leen woo téléphone kenn ki mi ngi tudd xalifa Sall keneen ki mi ngi tudd Ousmane Sonko mu ne ma ah bon ma ne ko waaw ma ne ko te am naa yaakaar suñu toogee waxtaan dinañ jubóo mu ne ma ah bon ma ne ko waaw ma ne ko parce que président lu may gis nii arrangé wu la arrangé wu ma mu ne ma lan nga gis ma ne ko man lu ma gis mooy yow doo bàyyi. te ñun tamit du ñu bàyyi ma ne ko te buum bi day dagg ma ma moom nga gis ma ne waaw ma ne ko te buum bi su daggee du la arrangé ñun tamit du ñu arrangé ma ne ma d'accord kon baax na dinaa ci xalaat ma génn woo ñu may woo wax leen lu mu leen di wax kon su amee ci seen déclaration yi kenn ku njëkk ko wax nekk moom sax xalaat na ni que gars yi ñu ngi waxtaan ça fait pas sérieux Tu es informé en amont pendant et en aval loolu mooy dëgg les Sénégalais nous connaissent moi j'ai 18 ans d'actif sur ma carrière politique j'ai jamais été pris à défaut de déloyauté ou d'infidélité ou de trahison je suis un pur produit de l'opposition politique sénégalaise te je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle quel est, l'intérêt que j'ai donc tey alors il semble que suma xarit Ousmane mu ne waaw dama ko nekk yi daf ma nekk benn juge Pastef moo ko jugé xaw ma lan nag xaw ma nu mu ko waxee mais Ousmane <laughs> moom xam na ni que su nekkoon juge Pastef du ko fëgg 200 millions amende moom xam na ko te man lu ma séq ci waxtaan ak président Macky Sall mënu ma ko fësal du suma cër lu ma ci naroon wax ak Ousmane Sonko wax naa ko ak Ousmane Sonko féetoo na boor lu ma naroon wax Khalifa wax naa leen ko te ñoom ñaar ñëpp kenn ci ñoom ñaar ils étaient pas opposés au dialogue yow ku dem ba ne la d'accord naa jokko ak kii téléphone ñu saafonte mais kooku savez il est d'accord pour le euh, lu tax nit ñi bëgg a fu ñu dëkkul di ñu xas di ñu saaga ak di ñu bëgg mais mais ak du ñu bëgg a diaboliser ak tamit di bëgg a manipuler askan wi duñ ko nangu non duñ ko nangu ñun du ñu ay muuma maa ngi jégalu nag ci kàddu parce que muuma moom natt bu la yàlla teg nit ñun du ñu nous avons une bouche pour parler hein une tête pour réfléchir et nous sommes assez courageux pour nous défendre maintenant chacun assumera ses responsabilités du moom la ngay wax on avance en avant rek mais ku nekk assumer ses responsabilités parce que nag nit bu dem ba ne diw mooy suma candidat diw boobu mi ngi tudd Khalifa Ababacar Sall wante su ko yàlla mayulee affaire ba mu mën a bokk man diw laay jàppale en l'occurrence Ousmane Sonko kooku wàccoo na ak yow man yellool Sénégal candidat élection présidentielle j'ai fait trois mandats à la mairie de Mermoz Sacré-Cœur mandats à l'Assemblée nationale membre du bureau de l'Assemblée nationale la capitale sénégalaise te wax dëgg yàlla Sénégal nit ñi mën nañ bañ na ànd ak man wante gëmuma gëmuma ne ni ko gars yi ma jéppi parce que defuma fi lu tax ñu may xeeb yéen su ngeen toogoon depuis le 26 janvier 2023 su ma Ousmane Sonko woowoon téléphone wala mu jaar suma kër comme il le fait souvent na ma Barth d'accorduma ci bi je n'aurais pas continué et il le sait su ma Khalifa Sall woowoon na ma Barth sa appel au dialogue du 26 janvier 2023 ànduma ci du ma xuus ñoom ñaar ñépp ñu ngi may dégg j'ai fait preuve de fidélité de loyauté avec eux et de transparence donc qu'est-ce qui se passe balaa may dee mu am ay nit jóg tey ne du euh, ñu def ci dialogue bi su leen neexee wante ñoom dafa am lu ñu lu ñu fàtte wax askanu Sénégal lu ñu fàtte wax askanu Sénégal mooy su amee élection suba ñoom dañuy bokk wante du ñu fàtte wax askanu Sénégal mooy su amee élection suba kii di Khalifa Ababacar Sall du bokk ma yokk ci nag du ñu fàtte wax Sénégal mooy ñoom lan la ñu jot a def ci paix moo xam ci doxalin moo xam ci lu di doon pour que Khalifa Sall mën a bokk mais loolu tamit dañuy il faut qu'on se respecte tey Sénégal nu ko Sénégalais noonu déggee noonu la mbir bi tëddee.